asalaamaaleykum mbokk sénégambien yi nekk fii ci itali yéen ñiy déglu rajo defaral suñu bopp ci àddina bi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di nuyu tamit mbokk yi ñi nga xam ne ñu ñuy déglu ci yeneen plateforme yi yu mel ni euh, Facebook ak euh, YouTube. surtout nag ci youtube mbokk yi nga xam ne mbokk yu bari ñu ngi ciy déglu di leen fàttali rek ne rajo defaral suñu bopp nekk na application Android boo xam ne su ngeen demee ci Google Store mën ngeen ko télécharger am ko ci seen téléphone ndaxte nag wax dëgg yàlla xibaar yi ñuy joxe dañuy bëgg mu gën a jàll ci application bi nga xam ne. moom la rajo defaral suñu bopp def xaalis liggéey ko kon nag ngi yéen ñëpp ngeen am application bi te nag mbokk yi comme ni mu ko waxee ñu ngi gis ne nit ñi koy déglu ñu ngi gën di yokk bés bu ne nekk nag ci lu dëkk yu bari nag muy Italie gi ñu nekk Sénégal France Espagne Allemagne États-Unis ca New York surtout maa ngi nuyu suñ mbokk ya nekk ca New York yëpp. waaye mbokk yi su ma yemoon rek ci àddina bi yëpp ñu ngi déglu rajo defaral suñu bopp kon nag dem leen ci Google Store ngeen chargé application bi su ngeen tàppee suma tur rek bàyyi Diouf wala nga def rek rajo defaral danga nga gis application bi ngeen mën ko am ci sa téléphone ci seen téléphone mbokk yi ñuy ñaan yàlla yàlla na ñu yàlla may jàmm ak salaam. yàlla nañu yàlla may ñu mën euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ni ñu bari di ñu ko rafetlu di ma yónnee ay message ci whatsapp di gërëm di rafetlu liggéey bi yàlla nañu yàlla may taxawaay bi ba nga xam ne lii su jeexee dinañ mën euh, di def bés bu ne journal boo xam ne day joxe xibaar yi nga xam ne moo concerné dëkk yiñ nekk dëkk yañ jóge ak li wër ci àddina bi kon nag mbokk yi encore une fois téléchargé leen application bi mbokk yi xanaa rek ñu ñëw léegi ci xibaar yi nga xam ne moo rot fii tey 11 avril 2020 ci mbirum voran coronavirus bi nga xam ne dëgg yàlla mu ngi wër Italie yëpp mu nekk nag wax dëgg yàlla lu métti waa mbokk yi kon nag xanaa rek dañuy dem joxe chiffre yi nga xam ne moom lañ Euh, Faso di def bés bu nekk te euh, protection civile bu itali di ko joxe bés bu nekk loolu la ñuy ñëw fi mu nekk nii faram-fàcce leen di wax na rek euh, mbokk yi ñi nga xam ne ñoo nekk virus bi dugg na ci seen yaram te nekk ca hôpital waaye nag sonnaguñ ñooñu mbokk yi mu ngi toll tey ci vingt mille cent quarante quatre ñuy fàttali rek ne démb vingt mille deux cent quarante deux la woon maanaam wax dëgg yàlla wàcc na ci lu euh, toll ci cent personnes nekk nañ euh, wàññeeku na wax dëgg yàlla ñoo xam ne feebar bi mu ngi woon ci seen yaram bañ yóbbu leen hôpital waaye nag feebar bi gaañugu leen sonalagu leen ba génn euh, am na lu ci toll ci téeméeri nit tey démb ak tey yu ci génn. mbokk yi xanaa rek ñu yegg ci ñi nga xam ne ñu ngi thérapie intensive ñi nga xam ne ñoom nag microbe bi virus bi mu ngi ci seen yaram sonal leen trop bañ samp leen machine yooyu yi leen di may ñuy noyyi ñooñu mbokk yi tey mu ngi toll ci trois mille trois cent quatre-vingt-un démb 3497 la toll woon mu mel ni nag tamit loolu wax dëgg yàlla wàññeeku na mbokk yi xanaa rek ñu dem ci ñi nga xam ne ñu ngi 3000 euh, waaw ma baax ma ma ma baamtuwaat ko thérapie intensive 3381 la la woon démb tey 3497 kooku wax dëgg yàlla dafa yokk tuuti waaye wàññeekuwul. mbokk yi ñu dellu ci ñi nga xam ne eh, feebar bi feeñ na ci ñoom waaye sonalu leen te wóor na docteur yi ne virus bi mu ngi ci biir seen biir yaram mais nag ñu ngi leen bàyyi seen biir kër di leen surveiller di ñuy wax quarantaine lañ leen def seen biir kër di leen surveiller ñooñu mbokk yi démb mu ngi toll woon ci 66 534 tey mu ngi toll ci 68 744. kon nag mbokk yi ñi nga xam ne tey ñoo yore feebar bi ci Italie lépp muy feebar baa ngi ci sa yaram waaye gaañugu la sonalugu la wala feebar baa ngi ci sa yaram ñu ngi lay sonal na la bañ samp la machine yi wala feebar bi mu ngi ci sa yaram mais feeñul fenn ñu def la isolement ci sa kër ñett yooyu mbokk yi suñ ko boolee tey mu ngi nekk 1269 su ko waxee ci wolof mooy euh, téeméeri junne téeméeri junne ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñooñu tey fii ci Italie ñoo yore feebar bi loolu lum leen di jox rek mooy wax dëgg yàlla feebar bi kenn mënul wax ne duggul itali sonal na itali bu baax parce que 100 269 presque population ab dëkk entière la fii ci Italie te nag du ci dëkk yu ndaw yi mbokk yi ñu dem ci ñi nga xam ne ñoo yore feebar bi tëwér macha allah alhamdulilah loolu dañ koy rafetlu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla feebar ba noppi wér loolu mbokk yi dafa nekk lu rafet li ci gën rafet nag mooy ci ñi wér